da nga bokk ak localité un candidat sérieux à la présidentielle muy Bassirou Diomaye Faye nga gañe woon ko ci local yi nekk maire moom gañewul woon dara euh, législative yi aussi pareil bu ma bu ma juumul mais ñu jëm ci élection présidentielle là les donnes vont vont changer il est le candidat vous euh, naka naka ngay appréhender boobu confrontation. lan moo war il porte le manteau d'un d'un chef de coalition. bokkatul ak Bassirou bi nga xam ne njagañaaw nga nga ko nga ko gagné là c'est c'est quelqu'un qui demande le suffrage le pour nekk président fi nga jaar na moom ngay jaar ak moom ba tey wala am na lu soppeeku ci diggante bi. léegi question boobu dama bëgg nga nga denc ko. Mhm. ba ñu jublu ci présidentielle parce que fu mu nekk nii affaire date élection la ñuy. la ñuy waxtaan day ñëw. oui d'accord bàyyil ba mu ba mu jóg léegi Bassirou Diomaye nga war a xëccoog moom est-ce que victoire bu fekkoon ne am nga ko sax dina di nga ci am bànneex bi bi bi war ko xam ne kaso la nekk li ma bëgg a wax mooy tey jii est-ce que gënul ñu génnee ko ngeen compétir à chance égale. waaw déjà affaire prison bi nday san day loo xam ne kenn ñaanulu ko doomu aadama. Mhm. ñun ñëpp ay jullit lañu donc vraiment ñu ñaan yàlla génnee ko ci rawatina tey bu président taxawee pour waxtaan ak seen kuréel. Mhm. pour ko vraiment ñu am ay. consensus apaisement am ñu ñu génnee donc côté boobu mais nag li ci li nga yeneen question campagne yi foog ñu xaar ba campagne yu jot. mais bëggoon naa xam nga pas parce que c' est important yow lay xëccoo xëccoo la keneen Ndiaga Niaw jusque là c' était votre. Euh, clairement bastion bu may tuddee noonu. Ndiaga suñu base la. voilà base Benno Bokk Bokk Yaakaar la. Mm-hmm. may nuyu leader Benno yu ma ci àndal en passant suñu base la te mayewuñ ko tey mayewuñ ko suba. la commune incha la sant